waaw ah yooyu nga bëgg rek. Ah. bu doon sasago ma dugg ci xuus xuus. mais attends mais mémoires da nga gis yeneen yu gën a neex. di nga mais politique aussi pour terminer. ma ah. may mën a man su ma xee bokkuma bennoo man bëggoon naa Macky Sall nekk candidat. nekkoon candidat dama koy jàppale. Hmm. waaw. Euh, troisième mandat illégal. du non du ma tuddee man troisième mandat yéen yéen ko jàppee troisième mandat. mandaa bi sénégal yi ñoo koy joxe damay jàpp ni amoon ne amuñu droit demande élection parce que man loolu laa gëmoon depuis 2016 donc bu nekkoon candidat naa ko jàppale. léegi bu tànnee aussi candidat boo xam ne jàpp naa ne war naa gagné te foofu yaakaar naa président du ma décevoir. jaral ne ma ma solaat sama tànk tuwa mais kan yow kan kan ci candidat yi bu ko tànnee kooku ngay jàppale. ki war a gagné rek. ak ki nga xam ne jàpp naa ne il a euh, relationnel au plan national koo xam ne euh, bu ñu ne Macky Sall yóbbu Touba problème du am bu koy yóbbu Tivaouane problème du am bu waxee Diassane problème du am bu demee Casamance présenté ko problème du am bu waxee ak ses alliés problème du am. xam naa sa candidat merci beaucoup. xam naa kii sa candidat. <laughs> <laughs> mooy sama candidat. merci beaucoup.